Eh, gars yi man courte bi ñoo naan ko Marco Silva man lii gis nga kii lañ ko tegal mu lànk tëdd ba suuf man lii xaw ma doylu la xaw ma bañ a dem ci arabi la xaw ma exact lan la waaye man de ma doonoon coach nekk ci club boo xam ne nii club bu ndaw la fa fee ca Fulham non club Arabie Saoudite tegal ma loolu xaalis boobu xam ñaar lañ ko tegal maa ngi ciy ñëw quarante millions d'euros lañ ko tegal boo xam ne ci deux ans lañ koy fay maanaam chaque at vingt millions d'euros lañ koy fay. loolu ay milliards la bu lànk ba tëdd suuf ne fulaam lay toog xaw ma doylu la xaw ma bañ a dem ci naari xaw ma exact lan la te gone gu ndaw la nag du mag yooyu ci kurcu quoi mu ngi noonee te boo xoolee la ko waa Arabie Saoudite proposé si xaalis boobu noonu salaire boobu am na jour yoo xam ne ay star planétaire la nekk ci ay club yu mag laaluñu loolu sax xaaj bi sax laaluñu ko moom mu doon coach rek Arabie Saoudite Al Hilal coach euh, équipe bu ñoom Kalidou Koulibaly fay ko loolu chaque en vingt millions doro maanaam boo boole deux ans yi quarante millions d'euros la mu bañ toog foofee ca fulaam may ni xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee en tout cas cas bi critique na critique bi kaana mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu kookee di Marco Silva doon coachu Fulham day na dafay toog foofee ca Fulham ngeen xamee ko noonu ba tey ci xibaar mercato 23 juillet tey jumuma ci date bi suma jumul dañ koy continuer ba léegi kookee di Jiménez actuellement dina rejoindre euh, club boobi di Fulham nga xam ne fa la Marco Silva nekk ci euh, prix bu tolloog 5 euh, virgule 5 millions d'euros moom la koy rejoindre ngir war a mën a wéyal baax baax pour Petrovic bu jógee foofee dem rejoindre Al Hilal kookee di euh, Jiménez moo koy remplacer ngeen xamee ko noonu waaye le jour boobee ñu naan Matteo Retegui moom nag euh, Genoa club italien boobu actuellement moo ci teg temps ngir war koo mën a jënd dossier yi mu ngi doon avancé waaye amoon na quelques gàllankoor peut-être gars yi nañ ko lijjanti ci suuf mu ngi noonee ci fédération italienne bi ak euh, fédération mexicaine boobee euh, fa la problème yi nekkee ñu ngi xaar nag dinañ ko résoudre ou pas mu ngi noonee di leen leeral que ni le jour ivoirien boobee ñu naan Wilfried Zaha moom nag jamono ji Galatasaray la nar a dem le rejoindre libre nag la fa nar a jógee nag Galatasaray mu ngi leeral que ni discussion yi commencé na pour kookee di euh, Wilfried Zaha te salaire bu tegu ci temps lañ ko nar a jox mu ngi noonee maanaam Wilfried Zaha bu naree dem Galatasaray boo ko Al Nassr di laaj di ko fay xaalis weextal boobu moom lu mu doon xaale te am actuellement léegi matal 30 ans est ce que matalu ko sax mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu le jour boobee ñu naan Bams moom nag jamono ji euh, Newcastle officialisé na ko ba 2028 signé na fa contrat boo xam ne 38 millions de livres sterling lañ ko jëndee muy 40 millions d'euros ngeen xamee ko noonu kookee di euh, Bams ah, mu ngi noonee le jour boobee nga xam ne moo nekkoon foofee ca Leicester bu ñoom euh, Nampalys nga xam ne dafay jógee mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu waaye Nico Gonzalez pour les Catalans kookee nag Porto ak Barça commencé nañ yi vingt quatre heures ba quarante huit heures daal lañ nar a officialiser mbir yëpp matal lépp accord yeeg tout ñu dem visite médical ñu officialisé ko mu doon joueur Porto ngir xamee ko noonu ni ko euh, Gonzalez kookee di euh, euh, John Wilson nag moom nag rejoindre na Reims bu ñoom joolo bi comme Manchester City fa la jógee ah, gone nga xam ne ci ah, nekkoon waaye dem na foofu ngir wëyal bu baax a baax mu ngi noonee Fred ak Manchester United nag ba léegi seen mbir jeexagul Fred daal li muy envisager mooy a metti nag ah, Manchester United ba mu jëndee Mason fa dina gën difficile poopee pour kookee di Fred pour mu titulaire ngeen xamee ko noonu gars yi képp koo xam ne nag abonné goo suñu chaîne YouTube c'est simple comme ni ma koy waxee rek duggal suñu bio TikTok gars yi ngeen bës lu ko YouTube mu yóbbu leen chaîne YouTube bi ngeen abonné waaye di seetaan foofu vidéo yi ba mu jeex loolu daal ngir ñu mën a soutenir bu baax a baax a baax kon nag gars yi bu leen koy taay s'il vous plaît def leen ko massivement. Ah, wallaay ndeysaan man Mor Faxale moom saison bi commencé guddee xoolal tiital naay défenseur u Angleterre ku nekk ngi réagir moom fa xale démb gars yi Manchester City dafa amoon match yu ñu doon football Japon mais dinaa ñëw ci Japon ay geste bu rafet bu ñu def ñooñu ñëw ñi ñooy ci ci wàllu discipline ak récompense mais man ñi dama leen bëgg samay mbokk lañ nag ça se voit moo tax ma gën leen a bëgg mu ngi noonee waaye it ma kookee di Erling Haaland moo foqale ci banc bi la débuté match ci fas kanamam nag amical sax day bëgg dugal nga wane boppam ñu dugal ko deuxième mi-temps sur le coup taf taf mu dugal ci deux bi jël homme de li ma ci gën a neex ba mu jëlee homme de xam nga homme de match yeneen kii dañ lay récompenser ay euh, comment dirais-je ay trophées yooyu mais moom japonais yi dañoo génne lu mat six mille trois cent euros récompenser ko joxaale ko lii mu doon loo xam ne nii vraiment euh, ils sont reconnaissants quoi ba pare yamaatuñu foofu ils sont disciplinés man loolu moo ma gën a neex ci ñoom muy asiatique japonais yi mais nak ci xeet boobu laa bokk nag. vraiment nag ñoom ñoo ma yar bu ma nee ñoom ñoo ma yar ñoom kañu yar man moo ma bokk na ci ñi ma waaw ci sama sama sama sama sama live ci lu bëri ak entraînement yeeg yooyu vraiment chapeau à eux Erling Haaland lan ngeen wax moo Fokala ren jii nag dina dugal atteindre soixante yi wala soixante dix yi nag daaw su ma jumul yàgg matal na soixante cinquante yeeg yooyu ren jii ba xam dina matal soixante dix yeeg wala cent bi ci benn saison ou pas ngeen bindal ma match amical jàmm ci yéen gars